Gueye 2 Alioune Seye dugg si na Basirou jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni leen koy defalee démb wan nañ leen kii di open press ñàq jariñu tey ñu ngi fii ci géejawaay Alioune Seye numéro 2 mooy def open press tey wasaare làmb gi ñëw fi ngir seet si Alioune Seye numéro 2 nan lay waajee bisam moom ñàq jariñu sëñ Bas ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ndax ñu waxtaanee ko. di bamba ko liiru mo maa bi dikk day liiru liiru na liiru ay minuma dëkk liiru sama moo xew la tax nga ci rib c'est moo la yóbbu Gambi combat yaag Casamance Gambi Ndar Géej Daara Jolof Jurbel ah xaw ma ko xanaa rabbi waa géej way képp ñu ñëw. oh dimbali ma bu ma waxee waxi ñàkk waay. dimbali ma dex wax nee naa man sama rakk laay waxal Alioune Seye. ko yàlla may ndam sedd guy. te day rabbi. waaw loo yor ne dimanche yàggul. booy géej waaye yaa ngi noonu. man maa man man xale la. ma ñëw fekk la fii ci open press seen mag. seen lider seen lépp Alioune Seye numéro 2 ban yëg-yëg nga am. loolu moom dañ siy kontaan ndax Alioune Seye 2 la moom ñëpp ñëpp ko war a fay bor ndax du tàngam lu kenn xeebul mbër mu ndaw xeebul mbër mu mag waaye ab abun presse day ñëw muy làmb muy lépp moo tax bisum ni la mën a mel te des na sax gars ngi ñëw am na ñu bëri ñu ngi ñëw mbër yu mag yëpp ñu ngi ñëw. léegi léegi Bas Alioune Seye ñëw na kaay. oh Maguette Seck a ngi noonu jëm. Boy ñaan numéro 2 ani na magam Alioune Seye band na ñaari loxo ya takk na ndombal baat mbaxana curu cara la laal ndeysaan dégg ko Alioune Seye nga noonu oh, oh, oh ndaanaan la ci làmb kenn du ko présenté moom Alioune Seye xale yi fi gën a tëj ci làmb mun naa ni sëñ Bas moo leen daan nga ni maa daan yanda doy na ndam tey géejawaay topp nañ ko ndaysaan lii la làmb di jariñ nga am bis gis say rak ndaysaan ñu ngi si leneen fa lan ku ne làmb ngi noonu Alioune Seye 2 Serigne Bass <laughs> cey làmb coow lay commencé waaye ci coow lay jeexee fi may wax ak yéen nii Alioune Seye dugg si ci open press ba gis naa la dëgër dee ci géew yi noonu ndaysaan bett ma woon Ndeysaan samaliir bu ndaw bu bëre ay waay aya man ninke samaliir bu ndaw bu bëre ay waay aya man ninke

sama ah, nga indi sa mun naa ne seen liet naa ñëw ci làmb ku ne xam na ne Alioune Seye 2 monument la ci làmb la déggee 2 loo yëg ku ne xam na sa diggante ak Alioune Seye 2. waaw mais sant yàlla sant yàlla bu baax indi sama doom nday sama xarit Alioune Seye 2 sama lépp mun naa ne ay rax lañ ma ak moom mu am bés bu ma ñor bésam bi dafa ma ñor trop bésam bi dafa ma ñor trop tey mu war ci bëri ak ñaq jariñu amuñu lu ginnaawal ko dooleel ko ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam ci barki Seydina Mohamed. ñaata séance ngeen doon ànd di entraîner par jour. waa Diaz moom Alioune Seye moom li mu entraîné moom bon ëpp ay séance trois séances rek la ma mënut a xam waaw. tey ba nan la war a mën a bëree combat bi ba mun cee am ndam ndax xale bi nee na ki ñuy gunge ak ki kiy gunge waata duñ benn Alioune Seye day gunge waata rek waaye kenn du ko gunge. <laughs> ñàkk waxam rek lay wax loolu waxu mbër Alioune bu de ñoq jëriñ bu dee ah, ba nelaw moom xam na koy Alioune Seye bu baax barki yonente yàlla moo xam ne Alioune Seye yaram bi yëpp fit la te combat bi da ko préparé. ban état de forme la nekk fi mu toll. mais sant yàlla sant yàlla gis nañ ko pare na ko pare na ko man moom sama xel dal na waaw. mu yàgg ak mu gaaw kan la gën a avantage. ñun lépp lañ préparé Alioune Seye boo gaawee mu bëreeg yow boo yéexee mu bëreeg bu ñu paree ci àll bi Alioune la fee fekk. yàlla naa la fee saa tey seen liet naa mooy bëre. muy Alioune Seye euh, Alioune Seye 2 ku ne xam na sa diggante ak moom ban loo ma mën a wax ci loolu tey. encore daal yaru na respecté na combat am surtout nag avenir wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal rek yàlla may ko ndam ci barke na Mohamed. lan mooy avantage am ci combat bi. ndam kese. combat bi bu gaawee ñoom ñaar ñaari at lan na Alioune Seye nee na euh, ñàkk jariñu nee na ki ñuy gunge ak kiy gunge waata du benn Alioune Seye 2 day gunge waata rek waaye kenn du ko gunge. waaw waxi mbër jëfe ko mooy l'essentiel bi Alioune Seye ku ne xam ne làmbam bëri na une minute bëri na seconde bëri na ay waxtu yu gudd Alioune Seye moom yàllaa ko nattu foo ko yóbbu fekk ko fa moom kenn du ko jaay mën a bëri ak jaay bu jaay technique tey damaa gis géejawaay gépp ci ginnaawam ñu ànd mànkoo dooleel ko yëg-yëg bi lan la ak Alioune nu mu mel ci yéen xolam bu rafet xolam bu rafet moo ko may lépp mu am wax dëgg yàlla yéen a ñëpp jàmm ñi bu doon sagoom ñëpp nañ am moom bu doon sagoom sa gëm naa ne daan ñii nañ ko raw moom mu topp seen ginnaaw mais nag maa yàlla rek yàlla mi nga xamante ne mën tam moom yàlla ko yàlla cërale may ko ndam li des ci carrière yàlla moom ci séntu lenn lu ak xéewal gu bëri parce que tamit xéewal la tax ñuy bëre. Garga Mbossé mu ngi lay nuyu. maa ngi fay. sa diggante ak Garga Mbossé lan eh, du dara du dara. daa ah, xiif na la xaw ma yow na man royal la mu atlétique wala rek. gerte moo samay atlétique. mel ni combat bi combat bu nar a gaaw na gaaw mun na yéex. naa ne combat bi du yàgg. Ah. du diire moom. Jackson laa taxawal barki démb ndam lu rëy la am stade Diom Iba Mar Diop ci digganteem ak Pape Ndoye kookoy Jackson Jackson maa lay nuyu tey ma fekk la ci open press bi ban yëg-yëg nga am. waaw maa ngi sant yàlla bu baax di jël seen bi sant sama ñaari waajur waaw xam nga rek Alioune Seye suñu doom daay suñu lépp la suñu grand frère la. xol bee rafet borom baax la tamit aussi waaw ñu koy ñaanal nag lu mu jublu nii muy bis bi bis bu rëy bi yàlla na ko si yàlla may ndam si kaw ñax ndam lu seetu guytu yomb xam nga ki muy bëre xam naa bu baax ñax jariñ xam nañ ko bu baax a baax ñax lan la gën a foore ñax mën na lépp daana ko parce que man daana la bu nekkoon daan Alioune Seye du ko jël mais Alioune Seye daanoon lamb la moom tamit xam naa ne moom kenn du ko conseillé dara parce que suñu grand frère te yàgg naa bëre te daanoon lamb la tamit ñoo ngi koy ñaan bisum jëm si daal yàlla mu yar lépp yar ndam yàlla ko yàlla may ndam seet gu si ñax xam na ni yow ndaanaan nga ci làmb barki démb li nga def ak ki nga xamante ni mooy Pape Ndoye wane na ko Alioune Seye mu xeex ak mu bëre lan mooy avantage am ci combat bi waaw Alioune Seye na ñaar yëpp mën na bëre mën na xeex man pour man lu mu ñëw man a si am ndam pour man bu ndee xeex mën na si am ndam bu ndee bëre mën na si am ndam maa nga ñaan mu tee bu tawee moo mën ñëpp. yow mu ànd ak dal lañ nga gis. waaw loolu laa gis moom. combat bi dina gaaw. waaw si kaw Alioune Seye lay lay lay lay dépendre si Alioune Seye lay dépendre. Alioune Seye bu buggee mu gaaw dina gaaw bu mu yéex dina gaaw gëm naa ne Alioune Seye moo ko gëm naa loolu noonu. jàpp nga ne bu di ñaanal suma gaañ sama ñaari gaañ am sa ama ak Issa Tagna ak Lifa waaw xam nga waaw di ko ñaanal yàlla may na ndam am suma école waaw fii sa waalo maa am ndam bu baax a dem bi béy bu baax yéen waa Wassare maa ngi béy waa Wassare Lamb bu baax a baax di leen ñaanal seen site bi yàlla dem ba Fadal maa fay maa naka forme sant nañ bu baax sant nañ yàlla bu baax a baax. mu mel ni des sa diggante ak ñàkk jëriñu ay fan ci des lan nga yëg. waaw sant yàlla rek di ñaan lii may yëg nii yàlla na sax ba ci euh, dimanche ci heure bi incha allah ci kàttanu yàlla yàlla defal man dam loolu daal laa yëg. Hmm. mais pourquoi ñàkk jëriñu. waaw mooy war a bëri te rek. te ku ne xam nga ne sa sa waar waroo koo waroo koo bàyyi daal waroo ko gëj. xam nga li ma bëri benn année toog deux année balance bëri dafay metti ci koo xamante ne lam rek la yaakaar te làmb mooy sama métier moo tax ma jël ko rek mais du dara dëgg yàlla ñu ci sant yàlla bu baax baax waajal nañ ko ni ñu war a waajalee. ñu ko dékkee micro moom dafa cof combat bi da wax naan Alioune Seye 2 bis ba moom gëm-gëm moom loolu la moom loolu la gëm na gëm loolu ba jour ba rek. ci kàttanu yàlla yàlla may ma ndam. moom li muy wax ak li muy kii man loolu concerne ma. man li ma entraîné la gëm. li ma entraîné li ne sama xel. ak li ma war a def man lool laa gëm moom li muy li mu gëm ak li mu kii moom loolu la gëm. Hmm. moom loolu la concerné man li ma concerné laa moom ma concerné quoi waaw. ni Guédiawaye gépp àndandoo doon benn say nekk sa kaw mbaa nag pression. non yàlla tere ndax wax dëgg yàlla li ngay def boo ko mënee dara du la gaaw yëngal. Hmm. mooy li ma la wax cat ak mees rek cat ak xam ak ndogal suñu mooy mooy xool jàmbi bi nu ko neexee rek mu ne ko nii lay demee te alaa kulli noonu lay demee. ñu ci sant yàlla baax nag. yaakaar la ñu boobu ba léegi ñu ngi ciy góorgóorlu di am a chaque fois di am espoir ne dina baax. te amul lu dul yaakaar. ñu ngi yaakaar ne chaque jour dina baax boobu ba léegi ñu ngi ci nekk entraînement yi te ba suba ba gannaaw suba ñu ngi gëm ne dina baax. ci kàttanu yàlla waaw. Hmm. sa digganteeg Mame Boye parce que souvent da nga ci tudd lu soo gisee ma koy tuddoo boo defee ku boo gisee dara rek daraa ko waral wax dëgg yàlla ñi sonn suñu combat di sonn ci waa Géejawaay di sonn ci waa écurie Waalo xam nga di nuyu au passage sama doom ndey la dëggeer wax dëgg yàlla lépp moom la xam nga maam booy jaaw ñu ngi koy sant bu baax ndax sonn ci waa Zal Ndiaye xam nga góor a kees ñu ngi sant ñëpp sama mafia boobu noonu yow tamit Fadal maa lay ziar waaw di ziar ñëpp rek waaw ñi xam ne jàpp nañ ci combat bi Mouhamadou Matar Cissé xam nga waa diaspora bi yëpp xam nga ziar ñëpp daal waaw di ziar ñëpp. fuuta lu ñuy xaar ci say bëree bu xeex ci kàttanu yàlla lépp dina ñëw lépp laay indi lu gën a jege rek ma def ko ndam daal moo ma yitteel ci kàttanu yàlla waaw. li ma jaaxal mooy ñaq jariñu saa yoo ko laajee daa Alioune Seye de mag la naa naag Modou Lo bëri naag ku ne demut na ma may man ma dem. dégg li ma la man moom doo boo duggee dégg-dëgg du ma magu kenn mooy li la njëkk a jiite ci pomme rek moo fi nekk mais man du ma kenn man mën naa def loo xam ne moom mënu ko ndax man ñi may àndal entraînement wóor na ma ne li may daj li may daj sama yaram moom xaaj bi xaajaat daru ko kon su fekkee naa ay wax ay mag moom loolu gëm-gëmam la mooy li may wax à chaque à chaque fois rek moom loolu la gëm loolu lay wax. ñaq ni ma ko gisee dafa mel ni dalaa xeeb. prix dib la la bëgg a def. doo dégg li ma wax loolu du ma si tontu sax daf maa xep loolu nañ yónni yàgg rek yàgg baxul dara nañ yónni yàgg ba la nëf incha allah nañ toog fii dinañ ko waxaat ci kàttanu yàlla. combat bi bu gaawee avantage kan bu gaawee neex bu yéexee neex ci kàttanu yàlla ndax préparé nañ lépp daj nañ coono yi ndax lu ne faan kenn du ko jeex bi saison bi ubbee ba léegi aw ma woon combat sama booy ñu ngi doon am combat may ànd ak ñoom di entraîner suba ngoon maa leen di préparer mafia Kara bi Kara Ndiaye maa ngi koy sant bu baax baax a baax képp koo xam ne yaa ngi ci biir mafia bi rek ñu ngi lay sant xam nga wax ne géejawaay ñu commencé nii neex na yàlla na continuer. est-ce que Alioune Seye bi bëre woon ak Yanda bëre woon ak Ndoof dinañ ko mën a gis sa diggante ak ñaq jar ci kàttanu yàlla bu ko gën a pire mooy génn bii pa bii di ñëw incha allah bu ko gën a pire bu a. mais dañoo gis si combat bi da nga xaw a wàññi sa poids bi ñu gis ñàkk jëriñ yokk yokk na poids bu baax a baax lii baax dina arranger combat bi. non baax boo gisee sama premier interview euh, ma jëloon nga xam ne man liggéey naa yokk poids yomb na trop mais wàññi poids moo jafe kon ku wàññi poids rek kon xam nga ne liggéey na liggéey bu metti ñu ngi ci sant yàlla baax ñu ngi ci sant suñu bopp di ñaan li ñuy yëg nii yàlla nañ ko yëg ba jour ba yàlla defal ñu ndam loolu kese la ku ne xam xam nga pour nga wàññi poids boo gisee sama sama sama image yooyu nga xoolaat image bi nga xam ne xam nit ñi dofuñu mais ñi sant yàlla rek ci loolu mais xam ne mooy ñàkk jar ñu mbër mu mun tànk la mbër mu mën a bëri tànk la parce que boo xoolee combat bi passé bi nga xam bi la boo xoolee bu bëri mu la ragal day arrière cin bokkul safin cin bu bokkoon safin doo yekkal du la yekkal te du ñu léegi nekk këriñ de du ma ñoom man du ñu man xam nga dañu si sant yàlla bu baax naaguñ ci benn yoon lépp loo xam ne war na ci làmb ji ci kàttan yàlla def nañ ko li si mooy ñun ñaan yàlla yàlla ñu nam rek. loolu wàllu mobilisation foo ci toll. loolu moom xam nga loolu moom dañ koy bàyyi ci loxoy màgget mbay mi nga xamante ni moo xale yi sawar yi nga xamante ni ñoo nekk si ginnaaw wax dëgg yàlla ñoom lañ koy bàyyal ndax lépp lépp loo xamante ni ñu ngi euh, mi ngi yokk mobilisation bi rek dugg nañ ci kër kër dugg nañ ci gox gox ñii ñu war woo ñëpp woo nañ leen ci kàttanu yàlla ñu ngi ñaan yàlla ñëpp wuyu si rek ba jour ba yàlla defal ñu ndam ci barke Seydina Mohamed. wooteel. waaw di woote waat rek Mouhamadou Matar si sama patron maa ngi woo ndax wax dëgg yàlla coow li coow li mooma ah. wax dëgg yàlla di woo maam Boy Diaw mu ñëw na mais dama bëgg mu gën a ñëw xam nga di woo Andaw Ndiaye Pape Mama Fall euh, Dieye seen xam nga Baydi Ba sunu président écrit Mama saw xam nga Mama Adja Gass xam nga di woo waa diaspora bi yëpp xam nga Sifou Ndiaye si sama mama xam nga di woo waa diaspora bi moo demee France Cheikh bu Waalo Cheikh bu Waalo maa ngi koy woo Ahmed Sow xam nga Xaadim Teraanga euh, Tafa Diop Baye Fall maa ngi koy woo xam nga dem ba di woo Siraja Diallo di woo di woo Pablo di woo ñoom Madien restaurant waa restaurant moment yëpp waa Torino maa ngi leen di ci combat bi xam nga di woo waa Espagne Baye Góor xam nga alam ndaa kasi sama mag ki ne Sarr France xam nga di woo ñëpp rek ki nga xamante ni waaw waa yëmbal waaw sama sama sama sama turandoo Alioune Sèye mu ngi def mobilisation bu am solo yëmbal ci si kàttanu yàlla cinq quarts dina fa waaw ndax euh, yoroja moom moo gérer loolu moom mooy xam nga moom ci loxam laa ko bàyyi ci kàttanu yàlla yàlla nañu yàlla defal ndam xam nga Île du Saloum yëpp ñu ngi leen di woo suñu waa dëkk di woo ñëpp di woo Thiaré Sarr xam nga di woo ñëpp rek Bira Sarr tamit xam nga ñu ngi koy jaajëfal bu baax xam nga waa parcelle waa unité ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waa Castor xam nga sama kër yaay foofu noonu waa nangaan xam nga di ziar ñëpp rek di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla waaw waa syndicat. rendez-vous waaw maa waa syndicat maa ngi leen di woo waa Seras tamit maa ngi leen di woo xam nga di woo ñëpp rek. waaw woo Malal Malal jàll picc woo woo ñëpp waaw. waaw le allah yàlla defal ñu ndam ci kàttanu yàlla.